Sénégal Tonsou. Sénégal sama gars yi maa leen di bëgg de siyaar naa leen baax a baax gars yi dëgg ma leen présenté xoolal bu fekkee ne abonné gu bësal te nga abonné te nga si kolos bi pour nga bañ a raté benn vidéo. bësal nga abonné te nga like nga partagé jaajëf waay. partager wasa xare ñu tasaare. dañuy àpp bége tasarel et liker les élèves. Mais comment vous allez Aujourd'hui, on va faire l'étude des quatre points cardinaux. Bon ça, boo dégg nga monsieur lu mu waxee. yaay dégg kii mu mel ne ku lakk pomme de terre. Părtisul profil mă fi grăoane. Hei, e busulava! Qu'est-ce que tu parles avec Moussa? Hein? Moussa Ndiaye, moi je ne m'appelle pas Ibou Solal de. yaa ngi déglu ma lay wax bëggal jàmm nag Moussa Ndiaye. tudd ma Ibou Solal. sama papa Ibou Ibrahima Khalilullah la ma tuddee ma papa ma donné le nom de Ibrahima Khalilullah nga naan man Ibou Solal bu ma ko wax de sama wax de ma tàkk sa ko laa la wax Moussa yaa ngi déglu ma lay wax.

mu door e, e a teese fu tëj leen seen gémmañ yéen ñaar yéen a gën a réew ci classe bi pare xamoo ne gàtt vous ne connaissez rien eh et vous là toi yaa ngi dégg ma lay wax Moussa au tableau sont les quatre points cardinaux les, e les quatre points eh, cardinaux. Euh, euh. Moussa Moussa xoolal ci kaw ci suuf càmmoñ ndeyjoor laajte yaa ngi dégg lu ma lay wax ba foo xam te ma génne la classe monsieur man lekkat mooy cardinal man moo xam man ba ma xam na laay wax de waaw <laughs> lekkat mooy cardinal waaw son euh, gauche droite euh, ci kaw ci suuf <laughs> non man est-ce que dama bàyyi jàngale man dama bàyyi jàngale est-ce que ah déggal booy bi li mu wax man genre booy yi jàngal leen man jàngal ay mala sax ñoo ma ko gënal ah seen bopp bi dara nekk ci qu'est-ce que c'est ça hey Moussa jël seen bagage génn si biti yaa ngi lu ma lay wax waaye bu sa man trouvé naa Moussa fils-moi la paix jël sa bagage nga génn si biti bëgguma coow yaa ngi dégg lu ma wax ah. hey Sula au tableau yow mii naan la koy ok Ibou Sula je te la même question que Moussa yaa waxalaat yow ah. quels sont les quatre points cardinaux. je t'écoute ne me fais pas perdre du temps yaa ngi dégg dama lay wax ba yàgg sama temps la wax gaawal les quarante points cardinaux les quarante points cardinaux euh, euh, euh, impoli ah kan ma la wax les quarante points cardinaux ah li lay wax de seen réew yi les quatre points cardinaux la la laaj gaawal léegi noonu répondre wala ma génn la classe qu'est-ce que c'est que ça les quatre points cardinaux sont la tête, le talon et les quatre membres. <laughs> du ma la wax dara yow ñoo bokk yoon bu ñu ñibbi reetaanal parce que chef syndicat borom ndongo yow gis nga boo fi génnee naa la jàpp naa la tëjee ay tëj <laughs> booy damaa soxla si njëkk ak teraanga quoi c'est que dama am gan gan la am dama koo invité te lii occasion la booy jàpp si rek booy nga dem nga bousee nga bàyyi ma ma gàllab quoi ma géré jàpp si rek booy dama ko ñaan ngir yàlla quoi. waaw loolu dana lan la président dama ko bokk booy xam nga la ganu gel la te man nekkagul sax sama gel dama koy waaj a doxal. yaa ngi dégg ma la wax jàpp si rek booy. goro am na almet sooy man kala am fit ba naan day invité si kër bi ba naan day doxan hee man tey maa yuuxu nit ñi ñëw Moussa yow ngay wax ni la demal gaale nga bàyyi ma géré yaa déglu ma la wax dama wax soo ma siy jigéen gi laa wax te dem naa fépp damay doxaan yaa ngi déglu ma la wax maa tay Moussa sax maa tay doxaan kenn mënu ci tus laa la wax waaw man moom xaaral ma la ak gàlle bi xaaral ma dem nànk waaw xam naa ne yow moom mosoo doxal am victoire ay defet la ngay dajale maa ngay dem. non non non. mais maa bi ba nga ñëw. non même pas sax même pas sonn ma mais lu waroon a woote bi pour gën a gaaw damaa yàqamti de. ah da ngaa yaaxanti waaw xaaral ma gaalu ko raktak mi jaaw yow man mi yow man dama la bëgg laa la wax man je t'aime comme la poubelle de Diourbel booy <laughs> barke sax syndicat borom moo ngay man ne la je t'aime je t'aime quatre cent par jour mbañ ma bëgg naa matt ma bëgg naa rey ma bëgg naa waaw ah bon ñu def waay dem sëri ngir yàlla waay ngir koo ñaan man ku ma mu bañ ku ma mu bañ laa la wax si boog sa eral daw ngir yàlla boog si ngir yàlla nga nangul ma waay <laughs> no, no, no. <laughs> partager tasaare et liker abonner yow partager et tasaare yow liker